sëriñ Abdou Karim ture nee na am na bis mu fekk sëriñ bi toog jàpp boppam ak ñaari loxoom naan Ibra Fall de gërëm naa ko Ibra Fall de gërëm naa ko Ibra Fall gërëm naa ko nee na ma ñëw ba ci moom ne ko Mbàkke lu la Ibra Fall defal ba nga gërëmee ko nii mu ne ma Abdou Karim Ibra Fall de daa xam fa ma yàlla teg mu teg ma fa moo tax ma teg ko nag fa ma tegul kenn moo tax waykat ba wax Cheikh Ibra Fall ni ko yàlla gërëm na la ba jox lay sañ-sañ ngay fal di folli ku la neex jar